coowal suuf bi ci Ouest Foire jeexagul ginnaaw bi ñu xamle ni ñoo moom kër gi yemook loo numéro 8 nekk ci wetu miiru aéroport ba woon te waaju tudd amet Fall tàmbali fa tabax njabootuk Ousseynou Niass ñëw nañu fa tey ci alxamis ji yemook juróomi fan ci weeru mars ni dañuy taxawal liggéey ba ñu fa tàmbali ndax dañu jàpp ni ñoom ñoo nekk ci dëgg boole ko ak wane ay kayit li ñu jàpp mooy Ahmed Fall dafa am ñu bokk ci nguur gi ñu ko dooleel moo tax mu sañ a def li muy def Cheikh Tidiane Niass di rakk ci Mohamed Niass mi nga xam ni nee na moom moo jënd kër gi ci 8 millions di xamle ni li leen gën a metti ci mbir mi mooy lu tax ki nga xam ni mooy Ahmed Fall fekk seen suuf toj ko di fa tabax. jëndee suñ terrain jënduñ ko rek em ci. sama waajur bu jigéen bi taxaw ak sama waajur bu góor ñëw ko jënd jëndal ko suma mag boobu mi ngi Allemagne biñ ko ko jëndalee ba pare jënduñ ko rek terrain bi bàyyi ko noonu dañ fee def fondement fondation biñ ci def faal moo indi ay nervi fii ñëpp a teew ci koñ bi ñëpp mën nañ koo seede mu toj suñ fondation loolu mooy li nga xam ne mooy tooñ bu njëkk nga xam ne addina yëpp teewe nañ ko te li nga xam ne addina yëpp teewoon nañ ko mbooleem koñ bi koo laaj mu ne la faal moo toj fondation bi nga xam ne moo nekkoon ci terrain bi ngir bañ jàmmarloo tax ay takk der yu jóge fi nga xam ne moom mooy gendarmerie bu Foire ñëw fa wax ak ki nga xam ne mooy Cheikh Tidiane Niass ak yaayam ngir ñu delloo lépp ci yoon ñu nangul leen ko waaye nag di woo njiitu réew mi mu àddu ci mbir mii balaa muy jéggi dayoo. li nga xam ne mooy mooy li nga xam ne mooy li am président de la république ak Marème Faye Sall ak képp koo xam ne kilifa ngi ci réew mi nañ wax ci lii balaa moo ëpp. ndax ñun ay nit yi diine lañ suñ sañoon duñ yëkkati suñ kàddu ci ay suuf suñ sañoon am liñ bëgg suñuy wax ci diine la ñuy wax wala ci alquran wala ci qaala rasul waaye nag dafa neexut ci tooñ tooñ kenn képp ku lay tooñ di la bëgg a doole di la jaay ay doole loolu xol attanu ko alquran dafa wax ne wa in aqibtum fa aqibu bi misli ma uqibtum bi suñ leen tooñee na ngeen fayu kem liñ leen tooñ ñun su fekkoon ne dañuy fayu dañuy ànd ak suñuy taalibe ñu ñëw toj ko waaye dañoo xam ne duñ def loolu te loolu du suñuy cër te dëkk bii dafa am yoon looloo tax ñu dem ci yoon waaye nag yoon su fekkee ne lim war a def defu ko ñun tim nag lépp lum ko jaral moom mi ko moomut nit ñi ko moom jaral nañu ko lu ko ëpp. ki nga xam ni mooy ndeyu mbill gi di Ahmed Fall Dakaractu woo na ko ngir séq ak moom waxtaan ci mbir mi waaye lim ñu xamal mooy moom amul benn déclaration bu nga xam ni dina ko def ci presse bi.